Kudanna ya muhumunca kune danna alhamdulillah wasalatu wasalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man wala asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi ñëwaat beneen yoon pour présenter leen benn documentaire boo xam ne man ak sama cellule de communication bi ñu ko concocté réaliser ko wara leen ko présenter ñu def ci nag une démarche scientifique lan mooy démarche scientifique intellectuels yi suñuy disséquer di réfléchir ci benn phénomène boo xam ne xew na te mësta xew dañuy am benn démarche bu ñuy suivre mu am ay étapes yu bari la démarche scientifique née de l'étonnement mooy première étape bi étonnement mooy nga yéemu ndax am na lu xew loo xam ne mosta xew nekk ab phénomène nekk ab épiphénomène ñu commencé ci di ci xalaat ñu étonné te étonnement yàlla moo ñu wax ne na ñu yéemu sax ci alxuraan bi mu yónnee yonent bi tamit sallallahu alayhi daan sallam daan wax ne afala jëbu xanaa du ngeen yéemu yéemu leen suñu maam yi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ñoom su ashora jotaan tam xarit dañuy génnee ndongo daara yi ci daara yi wax leen nañ dem ca biir dëkk ba pour yalwaat suñu digisee dañuy jàng alxuraan di wax naan tahajjabu afala tahajjabu léegi lañ ko soppi naan taajaboon mais tahajjabu afala tahajjabu yéemu leen xanaa du ngeen yéemu loolu moo taxoon taaliboon jóg ci tamxarit donc boo mooy premier étape bi deuxième étape bi mu am le questionnement mu nga kon da ngaa war a laaj léegi da nga war a poser ay question le comment le pourquoi question boobu nga xam ne moom ngay posé wu nag dafa am solo ndax alxuraan sax wax ne ñu ne nañ dem ñu laaj boroom xam-xam yi suñ xamul euh, fas ahla zikri in kuntum laa taalamun dem leen ngeen laaj ñi xam su fekkee xamu leen yonent sallallahu alayhi wa sallam sax wax nañu ne ci xadis bu wér mu ne ñu a asuwaalu nisful ilmi laaj muy génn wàllu xam-xam soo laajee rek daal di xam donc mu nekk question léegi léegi nag question yi dafay wëlbatiku nekkaat yeneen yi dafay nekkaat réponse réponse yooyu wëlbatiku nekkaat yeneen yi question mu nekk la questionnement du questionnement de la question da ngay laaj troisième étape bi mu nekk observation nga commencé xool observation moom alxuraan wax na ko bu leer alxuraan nee nañu fa siiru fil ardi fanzuru dox leen ci kaw suuf ngeen xool donc nga commencé observer beneen étape ba ca tegu mooy soo observer ba com ba pare nga commencé nag léegi di analyser ngay analyser soo analyser ba pare beneen étape nga commencé di comparer li fi amoon ak li fi awul ak li fi xew li xewoon démb ak li xew nuñ mel ndax bii moo ëpp ndax bay moo gën ndaw nga commencé comparer soo comparer ba pare nga def sa déduction nag léegi soo defee sa déduction nag nga daaj di àgg ci benn euh, étape bu am solo muy la synthétisation nga commencé synthétiser dajale information maxlumaat yi nga yor yépp nga dajale ko pour xool nan ngay conclure mooy beneen étape bi ci topp conclusion conclusion tamit bu am solo la parce que la nga say résultat moom ngay wane nag léegi soo conclure ba pare nag doo fa catégorique doo wax ne lii ma présenté nii mooy dëgg wala moom rek mooy dëgg waaye da ngay ubbi ay perspective xam ne lu waay njool njool am na ku la sut nga daal di teg say perspective ubbi ay bunt pour ñeneen ñi mën a ñëw réfléchir discuter ak yow euh, frotter wu ak yow xool li nga wax ndax dëgg la wala déet donc démarche boobu lañ ciy teg documentaire bi ci lan la ci benn waay kan président de la république monsieur Macky Sall nga xam ne régnam de mille 2012 la mille à 2024 tey jamono jii may wax ñi ngi ci 2023 décembre 2023 donc mu nekk au règne au crépuscule de son règne kan mooy président Macky lan mooy nekk thème bi thème bi mooy est-ce que le président Macky Sall est le meilleur président de l'histoire de l'Afrique loolu mooy question bi loolu lañ posé ku ci nekk am nga sa élément de réponse danañ leen indil ñun suñuy tegtal ci loolu doomi bu Boubou Sall noonu la papam tudd ndeyam mu ngi tudd Kumba amadu Jawli Hassan Timbo mi ngi juddu le 11 décembre 1961 fii ci Fatick ay woy juróom ña nga jóge Fuuta ñëw jóge Fuuta ñëw siin brassage culturel boobu diggante séeréer ak tukulër lu bari tamit dana ci xew danañ ci dikk ci kanam mu dépare zéro comme tous les leaders yi nga xam ne ñoom ñoo accès à travers eux que Allah fait et défait l'histoire ñoom ñëpp ñooyam fi ñuy tàmbalee zéro la ndax ay self-made man la ñuy doon yàlla du du leen xëccoo ak kenn kenn du wax maa yàlla moo leen defar donc self-made man la la tàmbali. pauvreté avec un grand P mu commencé di yéeg di yéeg di yéeg di yéeg di ba àgg ci président de la république donc documentaire boobu lañ ñëw di leen ko présenté ñu commencé. nee ndax ñoom ñëpp kat nee seen ànd ak moom mii yàgg na waaye masul nekk mukk ànd ànd nee ndax ànd ci intérêt nee digganteem ak yow la nee sa digganteeg moom xëy na mi ngi lay fàttali loo xam ni fàttewoo ko nee taxaw boo boo xam ni moom nga ko taxaw fa tabaarakallaahu ne li dal ci sa kaw yëpp nag lu naturel la ne àdduna ku am gannaaw di nga am baatu gannaaw kon ku say kilifa jikkoy kilifa mooy rek président yow ni nga mas di doxale ni nga doxale président euh, foo dem rek da mel ni foofu nga dëkk dinaa wax gars yi ma ne président ku ko bëgg a bañ bul toog ak moom boo toog moom rek duñ ko bëgg parce que am na am na jiko am na jikko euh, nekk ak yow comme ni nga nekkee ah, waxtaan ak yow yow. bu koy ñaanal bu baax. gërëm ko it. gërëm ko sant ko sant ko it. li nga xam ne moom la sumb. li nga xam ne moom la sumb. yal na ko yàlla fal ba. yal na ko yàlla may kàttan mu yàggale ko. kër gi daal. kër gi daal. këram la. këram la. comm ni ko Alaaji Ahmed waxee. comme ni ko porte-parole am Alaaji Ahmed Babacar waxee. pay bi. pay bi. payam la. payam la. comme ni ko Alaaji Ahmed waxee. comme waxee. waaye nag bi yàlla indee ni kàddam waxee maccuɗo allah o jaamu yàlla bi moo di président de la république alhaji Macky Sall bi ko yàlla indee ci réew mi ku nekk gis na ay bëtam gis na ne ñoom ñetti ñoom ñetti président de la république yi fi passé yëpp la ñu liggéeyoon yëpp moom ci fukki at yi mu fi nekk la mu liggéey double na loolu ay yooni yoon yoon yoon yoon nee na loolu ku nekk xam na ko su fekkente ne que yàlla nañuy waxal ku nekk gis na loolu ku nekk tam xam na loolu ne di gërëm président Macky Sall. ko sant. di la sant. nañ taxawaay bi. sëriñ bi ne gis nañu soo taxawaay ci réew mi. waa Njaasaan kenn ëppalewu leen ci ci ci ci ci ci boobu. nee na waa Njaasaan kenn ëppalewu leen ci taxawaay bi. ak punti yu yëpp. ak ahlul punti yu yëpp. président lu mu wax rek dana ko def. ne président lu mu wax dana ko def. defal nañu fay teraanga yoo xam ni. Thank you. kilifa gi. sant bu ko sant bu baax. ci taxawaayam. ci mbir mu rëy mii. ba mu tàmbalee ba léegi. mi ko ànd ak nun ñu ngi leen di seereel sunu cant ak moom ci liggéey bi kon jërëjëf président taxawaay bi gis nañ ko ci wàll yëpp Thank you. xamal ne fii jàmm rek incha allah nga fay am gan nag la ci sama maam wax gan ter teraanga cooju di nga ko fi fekk ci comportement di nga ko fekk ci ay kàddu yéemu itam maa ngi lay gërëm. Hmm. ngërëm loo xam nag dëgg la ci man. maa ngi lay sant. cantu dëgg. Hmm. day tege ci kaw ndimbal. day tege ci kaw ndimbal. cant juddoo ca. ñaan nga mat sëkk. kudanna man ci sama bopp sax yëg naa ni président de la république Macky Sall ni mu kontaanee man Thierno Mouhamadoul Bachir maa ko gën kontaan nee banneex bi ne yegg si na ci man foo xam ni mënatuma ko wax ci àddina nee nañu xam ni mbir mi noonu la toll ci man neena leneen li des nee maa ngi santaat yàlla di sant mboolem jullit yi fi teew udanna ya mumu muncha eh kundi danna ya mumu Comment ne pas souligner la disposition bienveillante du chef de l'État de contribuer au réaménagement, voire à la modernisation de nos sanctuaires diocésains en général et du sanctuaire marial de Popongine en particulier. Nous prions Dieu de lui accorder une bonne santé dans la réalisation de sa mission à la tête de notre pays eu servi